nga xam ni ñu ngi ci yéen tamit daal bi fekk nga xam ci ñu ngi ci yoon yoon saxaw kër bu yees moom saxaw kër boo ngeen boo ngeen wooye fi naka la mu sànne instant ay na loolu yàlla Fallou li mbaa jàmm la Fallou ay waay e Fallou Sokhor Kelle toog na e 3 ans bërewul Alaaji mustafa Sokhor Kelle toog na e 3 ans bërewul jël xala bi nga xamni ko koro bi mu fi dajee takkusaan gu reey go loxo ya dina dor gémmiñ ay waay lii mbaa jàmm kon ma nga ñandu de ma nga ñandu de ñom ñaar Sokhor Kelle ñom ñaar Quench moo leen boole Quench bu da dafay dik dan eh, eh, pakal Fandène dellu si waat fi daan soxor kale ni leen nag bàyyi naa leen yéen ñaar ngeen seet ku daan dab ma. moo daa bàyyi woon lamb dem di garde garde garde yaa woon fan yële. moom dégg naa ñu ne dafa doon jàngale armation. ah dina leer ci kanam tuuti. soxor kale pakala fandeen Dramé si loolu soxor kale koy karkaral soxor kale sunu ndeyjoor pakala door do mo ah pakala kul pakala sànni na góos soxor kele wana ñu ginnaaw ñoom ñaar eh soxor kele trois ans bëre soxor kele trois ans bëre woo pakala bu fandeen door na pakala bu fandeen jàkkaarloo ñun waaw moo taal boobu du taalub dara am na koy béré almaji mi taal day ñangal soxor kele yi wan ginnaaw combat laa ilaaha illallah ay soxor kale boo daanoo lay wax waa Mbane Fall ay pakale fanden boo daanoo lay wax waa Seras ña ngay damante baram eh moo pakala soxor kale pakala cokaas na góos pakala cokaas na góos Alaaji Mustafa ñoom ñaar non Pakala même non soxor kala dem gënaat defar trop de corps ñoom ñaar lu xaw daje nanu daje nanu Pakala jàpp na soxor kala jàpp na ñoom ñaar ñaari bërëkat la ñoom ñaar na attention ku njëkk a def action ku njëkk a def action Pakala a ngi door ci faar Fallou Camara Adama Seck Monteuse <coughs> précise waay ñoom ñaar ñoom ñaar eh soxor kala ñoom ñoo da koo bëgg a bu doom doot da koo bëgg a bu luy xaw ndax Pakala dina ko luy xaw eh, kooku waxum waxumay waxam waxumay waxam waxumay waxam ñoom ñaar Pakala soxor kala. Alaaji Moustapha eh loolu ndax mën naa nekk zongala boobu mu bëgg ndax mën naa ne soxor kala jëmm jàng fi waaye doole ji néew fee allahu akbar waaw Alaaji Moustapha lii la yo tànk gos bi la dugal ca biir dadik eh xool ko xool ko xool ko xool ko xool ko xool ko la ilaha illallah eh kii lim bëre yooyu noonu xool ko xool ko xool ko lii lan la. lii lan la sant yàlla rek. lii lan la waaw xaaral ñëw lii lan la. sant yàlla rek. waaw kootu bi kootum lan la. maa ngi sant waa BIP ak waa Zeyzen waaw ñoo formé lamb ji damaa naroon xeex sama staff woowaat ma ni ma bul xeex kii boo ko jàppee lamb ji jeex dañoo futeeku ma futeeku ñu ne ma juru ngay xeex moo tax ma téye sama bopp. mais soxor dañoo gis nga sañaxal ko. man sax kottum biir laa doon yaakaar nga kottu ko kottum kanam rek doon wéeru ko. waaw ama ñun dan naan ma soxor kii la damaa war a confirmer loolu damaa mën a bëre pire kii contact ak ay sirajo yi ah am di nogoy ñoom saafi ñoom xama laay gote gars yooyu yooyu du mën a yomb maa ngi sant samay mag waa kii maanaam comprendre moo ko waa nam rek la solo li ko daane waxoo depuis mu ranta bàyyi ma njoon ba léegi ma daaw affaire ma toog di pause di wutaat doole barke alxuraan di sant waa Thiès gépp au ma seen fay di sant sama fans club bi di sant 100 pour cent soxor kele yi au ma seen fay di sant tamit titulaire yi ñoom Baye Gora ñoom Aziz Ndiaye Pape Seck Baye mbay au ma seen fay di sant Tafa Diop bu baax sama waa koñ Ndéla jaaykatu jën au ma fayam Assane Fall jaaykatu luju maa ngi lay sant bu baax di sant sunu waa koñ au ma seen fay di sant sama mag Baye Cheikh Lo jugee ba dakaar soxor xale yi dañoo dem ba Kima Sala bëgg laa yab. ndakatuyoo bëre baa ngi fi ba léegi li nga bëre kale bi lañ bëgg nga wax ñu ko waaw boo xoolee man def naa formation cadre trois mois ñun ne ni damaa yaakaar ni damaa bàyyi làmb fekk bàyyi ma làmb ay self défense da lay sëbe booy bi door na ma ay coups yoo xamante ni ma doon jàngaloon self défense kulus combat dina dugg saar na saar jox rendez-vous bëgg naa ngeen la bis bu ne ma di la ko wax neena len kep ku ci liggéey li may liggéey do ko daan. mais Mor jor yow dañoo gis exploit yu graw nga def ci saison bi lan la. mais mais nonu la damaa liggéey rek teel a ko boo teel lo jóg bëgg lu ne am ko. moo daan dëggee rek rek. barke Serigne Touba moko téré neex ñun du ñaar yar dañu tax. moo daan dëggee am abal de mani xolal ñun amuñu lu ñuy moytu. moo daan dëggee Papa Sow. saw fo fo ko lamb fa la ñun amuñu lu ñu ragal bay fa la ñu. way waay barke borom Touba duñu daw. billahi moo daan dëggee du daw yow xam nga li ma la wax bu baax. dégg naa jox nañ leen avance Reug Reug. moo dañuy wax lu leen neex. parce que Serigne Touba Mbacke loolu amul. Ah, wallaay la asim loolu amul. wallaay loolu asim amul. lu leer laa lay wax man gaynde laa duma arrière